Seydi Gassama ñu lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di nuyu di nuyu seen euh, auditeurs yëpp. ngay directeur exécutif Amnesty International section euh, Sénégal euh, tey ñu lay laajte jàngat gi nga am gannaaw li fi xew Sénégal bu yàggul. waaw su jàngat mooy événement xew-xew yu naxari moo amoon ci biir réew mi. ci euh, euh, ñaar wala ñett semaines yi nga xam ne moom moo mujj euh, doomu Sénégal yu bëri dañ ci ñàkk seen bakkan doomu Sénégal yu bëri am na ci ay gaañu gaañu yu métti tey sax ci suba am na kenn koo xam ne amoon ay gaañu gaañu yu mu jëlee bi ñoo na tey faatu na ci hôpital bu Ziguinchor soor xale boo xam ne fukki at ñett la am xale bu ndaw élève la tey ki nga xam ne moom lañ jublu ñun tey Amnesty International ak RADDHO ak Ligue sénégalaise mooy fexe ba ñu xam. Euh, ci maanaam euh, euh, ci ci ci ci ci ñàkk bakkan yi ci ñi faatu ci ñi gaañu ak tamit ñi nga xam ne ñàkk nañ seen alal ndax mbir mi nañ ko wax am na ñoo xam ne ay néew di doole lañu ah ñàkk nañ seen alal ñooñu li ñu dund amuñu ko ko ñooñu tamit def ñu intéressé ah. kon tey bilan boobu la ñu nekk di def parce que nag nguur Sénégal deful bilan bi eh. depuis keroog bi ministre bi annoncé ne fukki juróomi doomi Sénégal ñoo ñàkk seen bakkan depuis boobu nekkatuñu benn bilan bi nga xam ne jóge na ci autorité yi kon tey ñun ñu ngi def bilan di woo askan wi képp ko xam ne am nga ci information yu yoo xam ne information yu wër maanaam nga am sa mbokk boo xam ne ñàkk na bakan wala nga am ay gaañu-gaañu wala dañuy torturé na nga fexe ba nga jokkoo am Amnesty Radio wala Ligue sénégalaise pour que ñu seet naka la ñu ànd jàppale la pour que yoon mun def liggéeyam ci sa wàll wala sa wàll mbokk bu génn en tant que défenseur des droits humains lan nga foog ne moo waral euh, askan wi wàcc ci mbedd mi. man dama yaakaar ne li nga xam ne moom mu andi euh, maanaam euh, ñaxtu yi li nga xam ne moom moo andi violence bi mu ñàkk kóolute li nga xam ne moom moo am diggante. askanu Sénégal. Mhm. ak kër àttekaay yi. tey askanu Sénégal en tout cas lu ëpp ci biir askan wi. génne naa ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir nguur gi. Mhm. ndax politiciens yi toujours suñu nekk ci nguur gi euh, lu baax rek la ñuy wax ci justice suñu nekk opposition ñi nga ñi ko damay wax ne li ëpp ci askanu Sénégal wóolutuñu justice kër àttekaay yi pour que ñu àtte ci li nga xam ne moom moo opposé ñi nekk ci nguur gi ak kuje politique bi. wala bu ñu fi nekk ci nguur gi ak société civile wala boog ak journaliste yi nga xam ne dañ leen di critiquer wóolutuñu wóolutuñu leen te loolu n'est-ce pas jàngat la def nañu boobu assise nationale mi nga xam ne Moustapha Niass dem si yàlla ñoom ñoom ñoom Amath Danso dem si yàlla Amath Danso ñoom Bathily ñoom ñoo ko organisé woon fii assise nationale def na jàngat ci jàngoro bi nga xam ne moom moom moo nekk tey ci kër attekaay. Mm-hmm. proposer ay solution maanaam réforme ne war ko def pour que Sénégal yi mën a wóoluwaat justice bi si commission de réforme des institutions Macky Sall ci boppam moo ko créé bi mu bi mu toogee jox leen lu bëri ci koppar pour ñu dem ci gox yëpp ci biir Sénégal waxtaan ak nit ñi seet li ñu bëgg ci démocratie ak ak ak yoon eh, bi ñu defee seen liggéey bi pare jox ko euh, seen conclusion daf ko jël toog ci kaw ah ñi kuréel bi nga moom mu ëmb magistrat Sénégal def na colloque ñaari fan def ci proposition mu toog ci kawam. yemul rek te toog ci kaw réforme yi nga xam ne moom lañ ko moom moom la commandé moom ci boppam. Mhm. mu noonu ko appliqué waaye am na kaddu yoo xam ne daf ko yëkk di wax ko ci ci yoon bu mujj bi mooy 31 décembre. loolu yëpp tax na ba Sénégal yi tey justice kon man dama yaakaar ne li tax Sénégal yi wàcc ci biir tali bi mooy wóolu ñu justice wóortuñu justice pour que mu atte bii li opposé euh, maanaam euh, Adji aji ak Sonko mhm. ñu atte ko ci atte bu jaar yoon parce que gis ñu cré yi ni mu atte affaire Karim bi ñu tëjee Karim Wade bi pare te koy daan ci la ñu tooga ci liste mi nga xam ne moom lañ joxoon waa euh, joxoon waa cré yi mhm. Khalifa même chose kon wóoratuñu justice bi dañu yaakaar ne président Macky Sall mu ko dafi toog ci biir ci biir ci biir ci biir ci biir euh, ci biir ci bopp réew mi te du jàmmaarlo ak ay opposants yu am solo. moom justement dégg nga discours am ndax euh, am nga ci jàngat ne moom jàng na euh, message bi ko askan wi bëggoon a jox. waaw wala may gisul dama damay rapport ministre de la justice. ñi xam ne nee na ñi doon manifester ay mbër lañu ay mbër yoo xam ne amatu lu ñuy def parce que arène dafa tëj. dama ko rek mbër yi su dee mbër ñu doon manifester. message bi ñu ko bëgg a moom ak Macky Sall mooy arène balaa nga ci nekk champion da ngay jàmmaroo ak ay mbër yu mag arène dafa nekk ne doo xee ak Modou Lo ak Balla Gaye doo ak Bombardier doo ak Eumeu Sène loolu amul waaw su dee kon su dee ay mbër ñoo doon manifester message bi ñu mooy ñoom seen arène fi nga xam ne ci lañ ci lañ ci lañ nekk fay liggéey eh, foofu soo bëggee nekk champion da ngay jàmmaroo ak da ngay ak mbër yu mag kon. wóoratuñu procédure bi nga xam ne initier parce que pour ñoom procédure boobu li ñu ci jublu mooy éliminer un adversaire politique loolu ci benn benn ci lecture bi la beneen lecture bi mooy. Mhm. mais yaakaar bi xale yi amoon ci wàllu liggéey Macky kam bi muy ñëwee lan la wax mu ne genn wàllu million emploi dina ko créé cinq cent mille emploi loolu la waxoon mais emploi yu am ñu ana emploi yu mu diggoon Sénégal yi kenn gisu ko. dafa doon dañuy defee ne poli mais mais politique mënul nekk politique gu naxaate nga inauguré benn terre boo xam ne eh ëpp na bi dawul eh di inauguré sànq yoo xam ne pare wuñu eh je crois que loolu yëpp tax na bi ak pasar pasar alal réew mi nga xam ne am am am pasal pasal alal bi nga xam ne am na ci biir réew eh loolu maa ngi fi eh Eh? ni ko ko ni ko benn benn benn benn benn analyste di waxee mu ne mbënd mi eh? mbëkk mi ak mbas mi eh? ñoo yëpp ñu ngi ci kaw réew mi. tey jii ndax suñu démocratie li fi xew bu yàggul am na lum ci yàq. yàq na ci li bëri bëri bëri bëri ndax Sénégal bokkoon na ci li ñu doon wax vitrine démocratie ci Afrique waaw bokkoon na tey soo waxee démocratie ci Afrique modèle bi nga xam ne moom lañu doon euh, cité ci biir àdduna. mooy démocratie bu Sénégal Sénégal nekk na lu ñuy wax benn faar comme faar ngor bi rek ci wàllu démocratie biir Afrique waaye tey su dee dem nañu ba Nations Unies di woo Macky Sall pour que mu respecte ak ak yelleefu nit ñi y compris seen ak ak yelleef bi nga xam ne mu ngi ci charte réew mi te mu jox leen sañ-sañ pour ñu dox di ñaxtu su dee Nations Unies dem na ba di fàttali ko Macky loolu li ko naan pour mu respecte ko je loolu dafa wane lu bëri su dee CEDEAO mi nga xam ne Sénégal moo doon nekk ci gannaaw CEDEAO di koy naan euh, Mali mii dox lu ñuy démocratie Gambie dox lu ñuy démocratie nañu intervenir Gambie nañu intervenir Mali Sénégal moo doon def loolu su dee CEDEAO dafa wëlbatiku dinaa Sénégal gouvernement Macky Sall nañu respecté ak ak yelleef doo euh, Sénégal yi y compris seen ak ak seen yelleef pour dox di ñaxtu n'est-ce pas c'est parce que démocratie du Sénégal dafa suuxee dafa suuxee et aujourd'hui mun naa wax ne Macky dafa delloo démocratie Sénégal ci gannaaw. dafa jot dafa jot pour que mu mu mu mu mu mu mu changer n'est-ce pas le le le le cours de l'histoire il faut que mu changer le cours de l'histoire te ñi nga xam ne ñoom ñoo koy wër. Mhm. ñooñu bëgguñu njëriñam bëgguñu njëriñam ndax Sénégal moom lépp lu fi yàqu rek ci bitim réew Macky Sall la ñuy wax waaw Ablaye Wade jox na ko benn yedd boo xam ne yedd bu am solo nee ko. ñi nga xam ne da nga bokk ak ñoom parti wala bokk nga ñu bokk ci sa camp su dee am na ci ay extrémiste maanaam ñoo xam ne eh, nitu fitna lañu dee leen déglu waaye bu leen topp mool butu nee ko ci kër kay am na ñoo xam ne lu neex président rek la ñu bëgg waaw moo rek la ñu bëgg te dañu xaar président wax leen li ko neex dañ koy anticiper ah jox na ko ñaar yedd yu tey yooyu moom conseil yu am solo la nde loolu ab Abdoulaye daf ci jaar daf ci jaar ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wetu Macky Sall tey waxuma ci biir APR ndax gis nañu événement yi dafa wane ni que ñi gën a nekk ay fitna ci régime bi du waa APR mais mooy ay alliés yi nga xam ne n'est-ce pas dañuy nekk ak moom ah, bokk na ci anciens communistes yi bokk na ci anciens socialistes yi n'est-ce pas ñoom ñoo fi nekk di naan n'est-ce ay terroristes ñoom ñu nekk ci biir réew am na ay forces am na ay forces extérieures ñoom ñoo ñoom ñëw pour yàq réew mi wala bokk li nga xam ne moom moo dañ ko planifier Eh, dañ ko planifier pour mun a yàq réew mais lu lu lu lu mel ni événement yi fi yow semaine bi kenn mënul xel mënul nangu dañ dañ ko dañ ko planifier ay xale yoo xam ne dañuy jóg de façon spontanée caay gox yu gën a sori Ndakaaru n'est-ce pas di manifester di ñaxtu pour que seen seen dëkk mën a dëkk dëkk boo xam ne euh, ci yoon lay nekk ci yoon lañ ko teg ci état droit lañ ko teg ci démocratie lañ ko teg da loolu mooy aspiration xale yi. tey nga ne démocratie soxe na ci euh, bitim réew maanaam ci regard bi ñi ñi amoon ci Sénégal ñu gis réaction ONU euh, CEDEAO justement ndax seeni réaction am na lu mu joué ci discours Macky Sall bi ñu nemmeeku lundi. mais absolument je crois que pression bi du rek pression boo xam ne ci biir réew mi la jógee. xam nañu ne ci biir réew mi am na pression boo xam ne dafa jóge ci manifestation manifestation yi. Eh, moom xamoon na ne mënul bàyyi manifestation di continuer doomu Sénégal di ci dee parce que responsabilité bi encore moom la moom président ma Sall eh, bépp doomu Sénégal bu dee rek n'est-ce pas moom mooy premier responsable sécurité Sénégal yi ak stabilité réew ak jàmm ci biir Sénégal xam na loolu donc pression de la rue am na ci solo am na tamit pression kilifa diine yi eh, ñu wax ko ci kaw ñu bañ ko wax ci kaw kilifa diine yi wax nañu mooy xalifa général des mourides ak ñeneen ak ñeneen jàngu bi ñëpp wax nañ ci loolu soo ci jógee Nations Unies quand même am na poids au niveau international su ñu yëkkati seen baat wax ko daa mel ne àdduna yëpp moom moo wax ah CEDEAO wax na ci tur réew yi nekk Afrique sowu jant yëpp eh, sans compter communiqué ambassadeur ambassadeur Union européenne ñooy ñu fi toogal Union européenne Union bokk na ci ñi gën a jàppale koom-koomu Sénégal te gis seen communiqué ak lépp loo xam ne bokk na ci wàllum diplomatie su dee ay ay diplomate dem nañu benn di woote dialogue ci benn affaire boo xam ne affaire judiciaire la loolu dafay wane clairement li ñu bëgg wax état Sénégal kon je crois que pression interne am na pression extérieure am na loolu moo tax finalement président jël kaddu wax ak sénégalais pour mu leen a dalal n'est-ce pas rassurer tamit n'est-ce pas gan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi ak ñi nga xam ne xaritu Sénégal lañ ci bitim réew te ñu am n'est-ce pas tiitange ci euh, situation bi nga xam ne ci dëkk bi. Seydi Gassama yaa ngi koy wax sànq ci say wax euh, wax ci ñi faatu euh, ci li nga xam ne moo jot a xew Sénégal bu yàggul ndax am ngeen tey lim euh, ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan. waaw li nga wax naa sànq rek ñu ngi pour le moment continuer de faire l'enquête parce que nguur gi moom ñoom dañu fas yéenewul en tout cas pour le moment wax Sénégal yi exactement ban mooy bilan bi maanaam ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñi amee gaañu gaañu ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kaso ñu leen fàtte. Ousmane Sonko gën na kaso waaye ñoom Guy Marius ñoom Assane Diouf ñoom Clédor ak ñeneen ñoom euh, Birame Souleye Diop ah ñoom euh, euh, Abass Fall ñoom yëpp mu ngi tëj ci biir kaso tey lu ñu leen téye ah, tey dafa yenwul maanaa dañ leen téye rek parce que ñu yaakaar ne suñu leen bayee ci biti ñoom ñu organiser résistance fii su dee Sonko dañ ko dugal ci biir kaso kon daal amul benn motif yow bu ñu sukkoon maanaam selon yow bi bi tax ñu jàpp ay arrestation ay arrestation préventive la maanaam damay yaakaar ne n'est-ce pas su ma jàppee diw diw dina jóg n'est-ce pas organiser maanaam ay manifestation dama jàpp diw boobu balaa may yóbbu kii ci biir kaso mhm. loolu rek la moo moo moo xew kon ñun ñu ngi ñaan nguur gi eh, di ñaan euh, juge d'instruction pour mu tekki loxoom seen kaw rapidement ñu bàyyi leen ñu ngi seen kër loolu dafa bokk ci jàmm bi nga xam ne moom la président woote loolu su weesu dama ne ñu ngi continuer def bilan bi may wax président nag dégg nañu ci discours am nee na dina jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, mbokk ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan jàppale ñi nga xam ne dañu am ay gaañu gaañu ñu si ñi nga xam ne ñàkk seen àll baax na lool waaye jaxal bi nga xam ne daf jox ñi ñàkk seen bakkan wala boog dimbali bi dina ko jox ñi ñàkk ñi nga xam ne ay gaañu gaañu loolu warul tax ba yoon du def liggéey kon ñu ngi ko ñaan moom mi nga moom mooy patron parquet maanaam procureur nekk si biir Sénégal yépp ministre la justice am Macky Sall ñooy seen patron ñu ngi koy ñaan mu joxe lay instruction pour que ñu ubbi ay l'enquête ay l'enquête yu leer te l'enquête yooyu première étape l'enquête yooyu mooy képp ku ci nga xam ne ñàkk ñàkk nga sa bakkan balaa ñu lay jox say mbokk ñu denc la ñu def sa yaram autopsie autopsie moom mu mun a euh, leeral nit ki n'est-ce pas euh, naka la ci ñan anam la ñàkkee bakkanam kon tey li ñu na instruire parquet yi pour que ñu def autopsie képp comme yegg nga sa bakkan nañu def autopsie sa yaram balaa ñu la jox euh, sa say mbokk pour ñu denc la loolu su weesu. Mm-hmm. n'est-ce pas nañu continuer l'enquête yi teg af ci loxo yoon. waaw gis ngeen yoon moo koy joxe yoon su teg ay daan ba pare attakat bi su fekkee attakat bi su daan ba pare ci daan yooyu n'est-ce pas bokk na ci jox. mbokk ku faatu wala jox ki nga xam ne moom moo ci amal ay loraange wala ay gaañu gaañu ndàmpaay waaye ndàmpaay boobu du Macky Sall moom moo koy décidé du garde des moom moo koy décidé te li ñu ragal mooy n'est-ce pas mooy li xewoon ak xale yi ñekkoon seen bakkan ci prison Rebeuss ministre de la justice dem seeti mbokk yi yëkkati euh, xam nga benn million xam nga ñaari million jox ko mbokk yi nee na affaire bi ndogalu yàlla la ah ñu daal di bàyyi lépp n'est-ce pas affaire bi fay loolu moo jur li nga xam ne moom moo xew fan yi mm-hmm. ndax tant que yoon deful liggéeyam alkaati yi ak gendarme yi ak takk der yëpp dinañu continuer di xalaat ne mën nañu buur doomu Sénégal rey ko te dara ci génne dara lañ ci fekk loolu nag moo war a jeex moo tax ñu dañu pare eh, am nañu déjà am ni secret doo ak li Sénégal am nañu ay avocats yu fi taxaw mhm. ñu ñaan képp ko xam ne yegg nga sa mbokk rek na nga fexe nga jege ñu ñu booleel ak avocat n'est-ce pas pour que mu topp mbir mi eh, pour que yoon mën a def liggéeyam nest pas affaire bi yëpp leer parce que loolu moo mun a aar askanu Sénégal contre genre dérive yi su dee ñeneen événement amaat na ci garaw ci leeral mbir mi sax dégg nañu ñuy wax euh, benn plainte euh, auprès de la CPI euh, nan ngeen ko jàngate waaw plainte boobu ñun maanaam jógul ci ñun idée plainte boobu dafa jógul ci ñun ñun pour le moment ñu ngi jëm a def bilan ndax CPI dafa am ay anam yoo xam ne ci nga war a jaar pour mun leen a saisir mm-hmm. bala nga saisir il faut nga def d'abord ay enquête Euh, mun leen a wax euh, de façon euh, yu crédible lan moo xew ci sa biir réew su dee am na ñi dee nga wax leen <laughs> le nombre de décès nga wax leen ñi am gaañu gaañu su dee am na yeneen yàqu-yàqu comme par exemple jigéen yi ñu violé xale yoo xam ne dañ leen jox ay fetal et cetera yooyu yëpp da ko war boole ci plainte bi pour que plainte bi mu nekk une plainte crédible mm-hmm. kon ñun tollaguñu foofu ñu ngi def le bilan. mu ngi def bilan bi et bila ba suñu def bilan bi ba pare nañu seet est-ce que li nga xam ne moom lañ am ci suñu loxo euh, dafa jar na yóbbu CPI wala bokk jaru ko ah, waaye li ma mën a wax rek mooy justice moom képp koo xam ne dañ la lool rek rey sa mbokk wala gaañ la da nga am droit à la justice su dee justice bi amuloo ko ci biir Sénégal parce que état mu ngi protéger takk der yi mun nga ko am n'importe où au monde soo amee mbokk bu nekk France mu nekk Belgique wala Espagne wala feneen même Gambie sax mun na fa dem porter plainte ki nga xam ne moom la ñuy tax ba su fa tekkee tànkam rek yoon du koy teg loxo loolu moom lu leer la il faut que takk deer yi xam ko état Sénégal mun leen protéger mun na leen protéger ci biir Sénégal fexe procédure bi ñu mujj fenn waaye képp ko xam ne rey nañ ko te mu am mbokk ci bitim réew mun na porter plainte foofaa mu nekk ne sama bi sama réew Sénégal. dañ fa rey sama mbokk wala dañ fa gaañ sama mbokk dañ fa porter plainte plainte bi mujjul fenn moo tax ñu ñëw fii ci Nations Unies moo tax ñu ñëw fii ci Cour pénale internationale ñëw fii ci justice française wala justice Belgique wala justice Amérique wala bu Espagne eh, wala même bu bi pour porter plainte au nom de la compétence universelle euh, pour que kooku bés bu fi tegee tànkam rek yoon mun a teg loxo ci moom wala boog euh, si su dee mandat d'arrêt am na sax te mandat d'arrêt bi ki nga xam ne moom la ñu topp mun na ko bañ a am bés bu génne Sénégal rek ñu teg ko loxo yóbbu ko ci réew mooma mhm. kon il faut que loolu leer ci bopp takk der yi policier bu a tuuti ak gendarme bu gën a tuuti na xam ne munul wax mukk dañ ma santaane moo tax ma wax mukk dañ ma santaane moo tax ma torturé munul wax mukk dañ ma santaane moo tax ma def tel ou tel ñaawteef munu ko def moom ak ki ko santaane ñoom yëpp nest yoon war na leen topp n'est-ce pas su dee yoon mun na topp ci biir Sénégal ñii nga xam ne dañ leen lor am nañu droit dem jooy feneen eh, jooytu feneen muy Nations Unies muy CPI wala bokk ci tribunal bépp état boo xam ne n'est-ce pas état buy respecté ak ak yelleef doomu aadama. Mm-hmm. Seydi Gassama ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf ci seen invitation.